waay fii xal sa xol ah original neexal bu te pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw local la ñun ñoo ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko aussi ay équipement waaw mhm. mu def man loolu moo ma gënal ay milliards. Mhm. parce que dégg naa foofu sax. am mhm. benn waay bu wax wax bu am solo. Mhm. ne xaj bi it nekk si buntu kër gi war a gërre kër gi. kër gi ba sàcc dugg si biir kër gi bay wii nekk si kër gi moo mat sàcc bi ba sàcc bi daw. xaj bi war naa rus. waaw kon xaj bi war naa rus. mu wax wax ji am solo. wax ji woon olof dëgg la nag. boo déggul olof doo xam li. doo li muy wax dëgg la. te man muy wax bu baax. kon gars yi war nañu mën a geesu ndaw yi parce que ñun liggéey rek lañu am. te làmb mooy suñu métier ñu mhm. leneen lu dul làmb. Mhm. parce que ñun doon ne bu nu dara da dalee nii rek. Mhm. ñu polariser wu. que li ñu war a am yëpp si làmb lañ ko war a am. bu nu bëree jiwul. duñ yor dara. dañuy toog di jaay suñu ngor. di reyante sama gars yi di reyante. te loo dafa métti. surtout boo amul jàppale sax da ngay bëgg a dem àll ba sax. Mhm. doo am ku la jox oto la jox oto wala doo am ku paas. Mhm. da lijjanti te loolu dafa métti. Mhm. nit booy lijjanti boo waree lijjanti li lay yóbbu àll ba. nga war a lijjanti say entraînement. day métti day métti. moo tax parfois doo gis dañuy toog duñu mën a bëre ji. di toog lu yàgg duñu doog a gis. mu métti trop. kenn kese laa gis koo xamante ne nii moom ngi may jàppale nii. Mhm. te ko bu ma gëm na ma gëm na ma ne bu ma teel bu ma teeloon a gis. Mhm. kon lu bëri du ma ko de boo ko teeloon a xam daal waaw weesu fii. waaw dinaa weesu fii. Mhm. parce que ko moom suñu combat bi da si jàpp bu baax ticket yëpp moo ko jënd. ticket yëpp mën na ma sii nii man leen rek laa sant ndam. te boo jógee si combat bi ngay xam ne man dama la bëgg a pire. muy muy ndaanaan di gar mi. ko fu toog. mun ko gërëmul. Mhm. waaw defu na li nu la mooy wës. wës wës dañu bu baax. Mhm. billaay. wës fu mu lu ne. mi nam la dëkk mi nam bari ñi. mi nam la dëkk. jinja. Mhm. dañ koy gërëm bu baax. central bi tamit teg nañu loxo bu baax. te maire Sagna tamit. jàpp na nga jóge si nga jóge si combat ñëw adressé ko ma lu mu si fii tey foofu ñoom CFA ne fa ñoom Boy Faye ne fa ponkal yi ne fa yàlla du dogal bu ngay bëri bëri ba dajeeg bi nga xamante ne bi ngeen mujjee daje su ma juumul moo leen daan waaye li mu à chaque fois rek lutte simple dama jàpp ne am lu mënante des na say guddi mooy ah, daan CFA ñëw daan tas yaakaar final. waaw loolu du lu rëy si ñun. Mhm. parce que li tax du si ñun. Mhm. mbir war nañu nu a daan ñu ëpp ñëw fuuf. Mhm. parce que ñun dañuy liggéey rek. te man dama laan wax ne compétition bi boo si nekkee. Hmm. mënoo kenn. dëgg la parce que tey jii da ngay jékkoo nit daan ka suba hmm. mu jékkoo la daal. dëgg la bi ñuy njëkk a bëre ma maa nga daan. ñu dajewaat mbuur hmm. mu boo dama bëre ba ma maa mu daan ma si sama bëre. noonu laa jiinee làmb ji. moom moo ñëw ba si man na ma ah mbër lii làmb la ma ne ko lii du dara si man. ma daanoo du dara parce que mbapat laa nekk. mbapat la dëgg bu ma daanoo loolu man ma def dara parce que compétition laa nekk. Hmm. te nit ki compétir mooy daanu. Hmm. te man sportif laa parce que man li may génne yëpp. Hmm. jàng naa si lu bëri. jàng naa si luy sport luy espoir. parce que da ngay nit mu ñëw akalaat la waxtaan ak yow. dëgg dem comme man bu ma daanee Sénégal fii kon mënuma def dara. moom aussi sportif la. parce que ku xam-xam ne vraiment ku yëngal la. ku amateur yu sopp la moom moom mbëru mbëru mm-hmm, mm-hmm. waaw. kon mm-hmm. man bu ma leen daanee du loo xamante ne lu da leen war a métti. waru leen métti parce que li ñu doon laa doon. ndeysaan. leen tuddee dinañ dinañ fa dinañ tuddee. kon Mara préparé ma élément boobu noonu final bi nga xam demi final final en fële sa aar Saliou Diouf moo fa woote woon borom Amalda vraiment ñu koy woowee rek neeraan Pofine production àndoon seeg ñoom Alex ah, vraiment ak équipe bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp en attendant mais est ce que depuis sa combat bi passé tey promoteur ñu ngi lay woo pour combat. waaw ñoo ngi ma doon waxaat combat. Mhm. wante problème adversaire la am. adversaire parce que samay morom ñoo ma bañ. ñor ñor ah. waaw waaw c'est vrai rek tur bi nag euh, moom gars yi bu ne seen rek gars yi daw moom. waaw gars yi bu ne tur bu nu waxee seen i bari ñi rek. Mhm. gars yi dañuy rasu. dañuy rasu te. tur warul demee noonu. waaw warul deme noonu parce que ñun tur bi ñu am si làmb. Hmm. warul ñu mën a toog te du ñu am combat. Hmm. ñun dëkk moo ñu toog. Hmm. man sama komba sama combat bi billaay liy bari Bargny. kenn xamul nu mu toll. c'est ça ñenn ñi amuñu fu mu dugg pour ñëw stade. kaar dafa jeex. c'est ça borom dañuy woote ñu bañ duñ ñëw. booy des Bargny bëre yi. may jégalu loolu tamit. xam ne. bëggul ñun ñëpp dem. ndeysaan wante lépp borom oto yi la. lépp ci borom oto yi la. waaw oto yi doy toon. oto yi ñoo doyul woon. kon nag déwén ah wëz fexeel oto yi doy. ah bii yi doy ah wëz borom seen jinjaan ni ko seeni waxee kon ñu dem arène nationale ah ñoo la ñu dem arène adressé woon autant pour moi seeni bari en action te ñëwaat Mara. Seydou Bargny. waaw Boucar. borom Bargny. waaw. mais gars yi namoon maa ngi rek. guddi li nga bëree lu leer. non compétir rek. compétir rek. daa ñu gisoon ne da a raar lu waraloon sama combat moo teewoon préparation bi. moo ma teewoon moo tax ñëwuma. félicitations. waaw merci. tey a waaw. kon tas naa ko sama gaayan la. Ah. waaw. Ah, waaw kon waaw merci damay damay nuyu ñëpp waa Bargny Thank you. ay ca Papa Ndiaye final baa ngi noonu diggante tas yaakaar tas yaakaar ngeen xaw a jàkkaar moom la ak seeni sembel ñu ko seeni bar ñi yaakaar seeni bar ñi Papa Ndiaye ñaari nga ca tas yaakaar seeni bar ñi eh seeni dal na ko seeni koy dajale seeni ak tas yaakaar dina ko daan seeni ak tas yaakaar dina ko daan wala rëpp nañ jogaat seeni sembel tas yaakaar dina ko daan seeni ak tas dina ko daan wala rëpp nañ jogaat seeni sembel tas Séni ak tas yaakaar Papa Ndiaye dara xewagul Séni bari ci tas yaakaar Séni am na ngemb tas bañ na Séni sembe nak tas yaakaar eh Séni tas door na ko tànk daan na ko Séni bari ñi daan na ko Séni daan na ko Séni xale bi daa mën a bëre nee naa xale bi dafa mën a bëre Séni bari ñi na tas yaakaar jël bëre ca eh, noonu demee Mara yaakaar naa ne ah looloo di xewoon fële ca Adrien Senghor li mu wax si sa waay la rek gars yi nag des fois boo nii dañ lay xeeb de mais est du bagage moo tax. non non am na lu ngeen di non am na lu ngeen di def luy luy luy luy changé que munoo toll nii te buñ la gisee làmb mooy dañuy liggéey nag. xam nga mbëru lépp moom. waaw ko gisee bu solee yëre moom. waaw naan liggéey. waaw bu bu nga xam ne liggéey na. parce que souvent boo jàppante gars yi des fois jëli day yomb de. waaw parce que ñun. wala wala doole ji day day ëpp yaram bi. non man moom man dama gëm ne chaque jour bu ma jàppee. Hmm. dama xam naa li ma la war a daane. Hmm. même bu laa bëree sax xam naa li ma war a bëree yow. Hmm. boo daan tamit mën na doon erreur tamit. ma jàpp ni ma ni ma bëree baaxul nga daan. nga daan wante bu ma taxawee rek man naa la wax ne kii nii laa koy daane poids lourd nii laa koy daane poids léger nii laa koy daane. bëre foo ko man nag damaa doon lu bëre nag. Ah, waaw da nga ko tamit def na lu ah. bëree si ñun. Coins waaw. def na lu bëree si parce que moom ma si moom laa yoroon. Mm-hmm. man tar man damaa tarbiwu làmb nag buga. Mm. man dex naa lu neex ndax. ndax làmb ndeysaan. moo yaaxa sama jàng moo yaaxa lépp lu ma loon def. dama laan dem dama bàyyi jàng di dem géej. Mm-hmm. sama papa ne ma boo bàyyee jàng di nga dem. di may dem géej suñu gaal. Hmm. man bàyyi fi waa suñu gaal ne làmb rek. Hmm. dugg si àll bi commencé bëri. commencé lii demi final bi la yow ak CFA fii nii te boo xoolee fii da ngay gis ne daf la ëpp poids. Hmm. parce que man bëri naa moom. njëkk naa bëri moom moom daan ko. ma daan ka waaw te boobu moomu wër ndomb sax. ma daan ka si. ñu ñëwaat. muur mu daanaan ma. ñu ñëwaat fii. bi ñëwaatee avant bi ba laay ñëw xam naa li mu war a bëree moom. bi nga ñëwaatee nii. yi a ñëwaatee parce que mënoon jàpp na confiance parce que bi mu génnee si Cheikh Tidiane ñaar rek war a def ak yow demi boobu xam naa ne jàpp na confiance. da ngay jàpp confiance. Mhm. la daan wala man heure bu ma téewee li ma war a. li nga a xam naa li a bëre poids lourd parce que poids lourd moom daa am lu bañ. daa am bañ boo ko defee moom pour nga daan ko lu yomb lay. poids lay bañ. <laughs> wala a nga siy def code. non bàyyi ma dee si code. Ah, waaw boobu beneen quoi. yekk yi ndeysaan. yaakaar naa am na solo. ah di bëgg waat rek Cheikh Beye ñoo ngi koy bëggee Moussa Sembène ah CT Pro TV Mohamed Ciss ñoo ngi lay bëggee bu baax a baax Papa Alpha Gueye vraiment Ahmed Foun sama waa ji ah, si ah mam Paate Ndoy gars yi na si ligne yëpp laay njaay Pape Thierno Sarr Karim gars yëpp maa leen di bëggee vraiment di leen ziar bu baax a baax a Alpha ma ñëw sa combat bi yow. lan nga a liggéey si dafa mel ni bii baax nga jàngale. combat bi lépp leen travail sax. ah def nga box. Ah, def naa box def nga saal. Ah, waaw def naa def nga din. travail na lépp li si war yëpp. dem ci àll bi. def li wala gars dem ci àll bi. Ah, gars yi ñu rek la ñu rek. kese lekk tëdd. ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te am original pur jus de fruits. KPA transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.